te dajale na fi ñaari fan yi bureau politique ak comité central li ñu may ñu mën def loolu gannaaw coobare suñu boroom ak dogalam mooy tànne bi nga xam ne seetlu nañ ko ci wàllu mbas mi tane laa wax ndax mbas mi jeexul waaye nag comme gëj nañu daje jàpp nañ ne baaxoon na boppu parti bi daje ñu waxtaan waxtaan nañu ni mu gën a yaatoo waxtaan nañu ci tolluwaayu adina bi tolluwaayu Afrique tolluwaayu suñu réew bokk nañ ci ñi nga xam ne dañu jàpp ne ki nga xam ne da ngay wéy ci mbiru politique bu dee réeree nga biir ni adina doxe maanaam décision yi ngay nar a jël dafa nar a nekk ay décision yoo xam dina des bu baax a baax moo tax seet bu baax a baax saytu nañ tam adina ni muy doxee balaa ñoo waxtaane Afrique ak waxtaane suñu réew li àddina demee nag ci waxtu wi ñuy wax mooy xam-xam ak mën-mënu nit yóbbu na ko ci ay fànn yoo xam ne bu moyru moytuwul day réer ci lu leer seet nañ ne nit ñi tey dem nañ ba egg ci benn niveau boo xam ne naanaka niñ doon xalaate njaboot am na réew yu bari yoo xam ne ñu ngi koy bëgg a soppali am na réew yoo xam ne seen koom am na nu mu demee tey booy seet au lieu ñu fay tudd naan famille li ñu fay wax léegi mooy compagnon loolu nag lu mu wënul lu bari la ñun nag dañu jàpp ne am na foo xam ne àddina fa la tegoon tànkam li xarala dox dox waruñu fa jéggi mooy fami dañ ko war a sàmm mooy am na ay doxalin yoo xam ne dañ ko war a dàq ndax ngànce lay doon pour doomu aadama yi rax dolli dañ jàpp ne liggéey lu ko xarala xarala may loo xam ne daf koy woyofal waruñ ci falax doomu aadama ba génne ko ci ndax nag nit ki bu mënatul liggéey mënatul xëy ndax léegi rek jumtukaay yi ñooy def lépp ah nekk nitam day boo moytul dina jur lu méttee métti waxtaane nañu tam ni ñu saytoo maanaam mbas mi ak li nga xam ne moom lañ koy jéem a fajeek saafara ñu seetlu ne vaccin yi niñ ko yore doy nawaar lool te feebar bi nag daf ñu waroon a yar ndax jàpp nañ ne feebar bi dafa nekk feebar boo xam ne ku ciy faju tam na nga xam ne sa paj laawale na nga sàmm sa morom tant que feebar bi mu ngi am ci beneen réew benn réew du ci mus du ci mucc ba tax na donc war nañu gën a laayante biir gën a bokk li nga xam ne ñëpp lay aar ci mbiru suñu réew gannaaw tënk bi nga xam ne mbas mi tënk nañu ko ak métit yi nga xam ne jur na ko ci réew mi ci wàllu nit ñi ak li nga xam ne moom lañuy fexe ba am lu ñu jumtukoo lu ñu lekk lu ñu naan seetlu nañ ne mbas mi kat jur na tam yenn fànn yoo xam ne ñenn ñi jéem nañ ko jëriñoo ci li xew te ñu koy naqarlu ci weeru mars mooy lan moo njaqare ndaw ñi métit yi leen dal tëj bi nga xam ne tëj nañ leen pour aar leen am na ñoo xam ne fexe nañu ba wëlbati ko ba jëm jëriñoo ko mu jur ay yàq mu jur ay métit yu taratal ci suñu askan ñu jàpp ne loolu nekk na loo xam ne lu rafetul la lu gënul la te xarkanu réewu senegal yàqu na ci wàll woowu ba tax na lépp loo xam ne war nañ ko mën a def pour mu bañ ñu dalaat war nañ ci jógandoo ñun ñëpp ñu jaar ci nag gërëm suñu euh, takk der yi ñi nga xam ne ñooy aar réew mi ndax seen mot seen dal may nañu ñu rëcc loo xam ne bu wéyoon nen ni dina indi ngaañte bu rëy rëy ci réew mi ne nañu tam war nañu gën a bàyyi xel ci lii nga xam ne lañu jublu mooy lan mooy pal bi nga xam ne nar nañ ko def ci gox yi ak goxoxaan yi muy élection territoriale yi ñu nga xam ne dëgmal nañu leen pour ñun waa PIT élection yooyu dañu laawaale élection yoo xam ne ñoo leen nar a topp mooy lan mooy législative yi ak présidentielle bi ñëw kenn mënu ko teqale ba tax na taxawaay bu mot bi nga xam ne ñun waa Benno Bokk Yaakaar ñun majorité présidentielle war nañ ci taxaw war na nekk taxawaay boo xam ne motam du may beneen prox ndol pour leneen am fi ndax bu ñu ko defulee boo moytul li mu yàq dina bari ci élection yooyu nag pour mu mën a yong ñuy woote ñun suñu àndandoo yépp nañu gën a laayante biir laayante biir mooy ñu seet si yan anam lañuy fexe ba nga xam ne du ñenn ñi ñoo aakimoo lépp am nay incompatibilité yoo xam ne déjà yoon bi dàq na ko leer na waaye est-ce waxtu wi laajul ñu gën a yaatal loolu